artiste comédien mm-hmm. mais léegi sax daa mel ni mu ngi ci politique yi parce que maa ko gis mu ngi taxawal benn mouvement. Eh. da ngay bàyyi nga nuyoo ñu lay siiwur. waaw alhamdulilah bisimilah inna wali allah. Mm-hmm. ñuy nuyu internet yépp yoo xamante ni moment bi ñu ngi siiwur. Mm-hmm. di nuyu les fatigables te El Hadj Macky Sall laa ko tuddee di Pape Sall dëgg yàlla di jàmbaar ndax képp ku mu gis ngay jeunesse mu leer ko ni mën na apporter dara président rek moom dina la jéem a jege. pour xool naka la def ba président lim fi def ñu mettre ko en valeur di la nuyu bu baax yow tamit kuy gi sama xarit sama doomu ndey. Mm-hmm. dëgg la ñi ngi ci théâtre bi mais àdduna damay faral di wax ni ku judd rek figurant la mais lii tax nga doon acteur yaa koy jëf. Mm-hmm. bi ñu jàppee ni parce que man politique yàgg naa ci def naa man at yi bi may dugg ci politique sa théâtre gu ma ndax politique maa ngi ci dugg 2004. Mm-hmm. mais 2008 ba léegi maa ngi ànd ak El Hadj Macky tuddee ko benn slogan muy borom noppi liggéey inauguré ma créé benn mouvement bu tudd jóg jot na. ma gis ni président mi ngi liggéey mais dafa manqué ñoo xamante ni ñi ngi jàllale liggéeyam parce que yi dañoo demoon ba dugg ci benn piège bu leen waa Pastef kàmbal mooy di wax ci Adji Sarr nangam ba fàtt ni parce que nit bu amul argument amul programme da lay pousser pour yow nga dugg ci kàmb ba doo wax sa programme te président ku ànd ak moom faaw nga bëri wax parce que lim fi def moo bëri. ci laa créé slogan bu tudd merci Macky promouvoir lépp lu mu liggéey ñu def ko ay vidéo di ko tas mouvement boobu tey waa jaareem ñi ngi ci. Touba am nañ fa ay représentant Koungheul Malika ba euh, fépp foo xamante ni jeune mu ngi fa ñu ngi ci ñu dajale ci benn panel di liggéeyal président Macky Sall ba moment bii may waxee yow ñu ngi dajale di fee def récupérer quarante yi pour def ñun suñu liggéey parce que chaque jour ñun dañuy jiitu ci liy mettre en valeur liggéey parce que nit ñi bu buñ fi nekkee di wax ak di diaboliser di wax lu nekkul yow da ngay fexe jëf loo xamante ni nit da ciy mën a teg bët. parce que loolu la président soxla te man ñi ma soxla dëgg du ñi ma fekk ci président man ñi may convaincre dëgg parce que gis nga jeunes yi dama lay wax leen de six mois ci ginnaaw mënoon nga leen ndax de mais instant bi ñëpp a yeew parce que wax lu dul dëgg moom du gudd fan boo fexee ba am ci yére tubéy moo lay të nit ñi dem nan ba xam ni li leen Ousmane Sonko doon wax ay diabolisé la daraamu ci. parce que ñaar ñoo sekk Ousmane Sonko jeune yu nu diaboliser ba comprendre nu ak mag yu ko jege yoo xamante ni defe nañ ni seen àdduna seen propre intérêt personnel la nëbbee loolu pour yaakaar ni ñoom toog nañ pale mooy am nañ ay milliards te day nax seen bopp. parce que képp ko am Bachiran ba yàlla may la xam nga ni Ousmane Sonko du toog fi président. loolu moom amul ma dem te ñëw. na te sunu kanam la nekk. 2024 yàlla xam na ni képp ku yaakaaroon ni Ousmane ko day toog. ba nga bañ a liggéeyal yi wala ngay nekk bukki bu sangoo deru béy bee boo nga mureeku ni fàng te xam ne man maa ko bind ko denc Ousmane Sonko du nekk président parce que lu dul dëgg du yàgg. tey boo fekkee dangay ñëw ci réew mi bëgg ko defar Sénégal dafa am nu mu baaxoo dafa am taarix taarix bi mooy mag ñi danoo tabax réew mi ñàkk ko ci lislaam ci diine ak ci ngor tey mënoo fi ñëw nga bëgg a jël réew mi bu buntu dee maam Seydi Hadji Malick wala Serigne tubaa wala maam Baye Niass nga wax ci yow ci kaawu Ousmane Sonko nga mës a déggee xalif général di wax ñu ngi tuub ci wax ji nit wax ci lu dul yoon loolu kenn mësu ko dégg Sénégal kenn amul fitam léegi nag kooku ñëw Sénégal gii nga fekk benn président boo xamante ni kenn mësul doo dégg lu Macky wax nee naa la àqu àqu Macky Sall rek bis bu dalee Ousmane Sonko waxuma la président mais day am parce que yow mosoo jote ak moom Ousmane li problème bi di rëy mësta jote ak président Macky benn bi yow yaa bàyyi ba couvre-feu jot nga kaalaw àndoog sa benn partisan dem dugg ci xale boo xam ne buñ ko doon natt yéen ñaar seen personalité mënoon ngeen dund ba dee te du ngeen gisante lan la fa jiin yow la engagé beneen bi yow yaa taxaw ni Mame Mbaye Niang dañ ko épinglé ci vingt neuf milliards ñu ni la noo woo la ni la noo ki nga ni noo dama juum du IGF e, e la ñu ni la preuve bi est ce que xam ngeen ni Ousmane Sonko moo sàkku dossier bi dem ñu bari xam ñu lool mu leen du ma ko joxe fii tribunal laa ko joxe ñu jox la convocation nga ni sama gardien lan ko jox. di layam lay mi parce que amoo preuve mais loolu ka la Macky Sall fan la ca am yoon keroog ban ko condamné moo xam un mois la moo xam benn fan la ca am solo mooy waxul dëgg te wane na ni waxul dëgg. léegi nag comment se fait nga ni da nga bëgg a nekk président Sénégal doo wax dëgg da ngay diaboliser te lu teg nga yàqu mais xale yi nan conscient nit tey jii la la kilifa nga waxoon rek yàq bi ma ñam du ma ko tëkkaleeg bu ma dikk. nit melul ni mu waxee ni mu jëfee la mel te sénégalais toll nañ foo xam kenn warta gëm nit ci wax ci jëf lañ ko war a gëm tey mënoo fekk yow ñun ban problème la na amoon mag Sall est-ce que nit ñi ñi ngi fàttali ko bi muy door a toog lan la wax du fi def dara apprenti Abdoulaye Wade la mu commencé ñu ne non moom de dëkk bépp gas na ko muy inauguré ñu ne moom inauguré rek lay def léegi da ngay dégg ah, liggéey na waaye non mais attends ban Sénégal la nekk te ñi ngi ñi ngi génn ci coronavirus génn ci guerre Ukraine nga xamante ne danoo naroon tàbbi ci guuko goo xamante ni heure bi waroon na fekk ñuy jënd kilo ceeb 5000 francs nga am président boo xam lépp daf koy subventionné ba lu bari doo ko dégg. mais sa ay la yéwén nag boo amee président bu mel noonu muy liggéey boolewul dara ki wax bu doon téléphone vivre la amul bruit nga topp benn samba booy boo xamante ne xamul lu mu reeree guddi intérêt personnel am moo ko tax a jóg yor ay milliards ni yorul dara. mais intérêt personnel foofu dinaa fa ñëw est ce que bu nekkoon Sonko intérêt personnel moo ko tax a jóg euh, tey dina poste yi nga xamante ni bàyyi na ko ak li nga xam ne occupé woon na ko doon liggéey lépp mu bàyyi ko ngir taxawal ki nga li nga xamante ni mooy réew mi. waaw parce que gis nga Sonko dafa am benn stratégie bu mu indi cest à yooyu mu bàyyi bàyyiwu ko parce que Sonko ñàkkul xaalis Sonko dafa am ay day teg xel ba pare fexe ba booy ñu koy cotiser di ko jox. léegi nag loolu xam nga tey mi ngi mel ni may dem jëndi benn marchandise bu ma demee jëndi marchandise bi am na gañaa bu ma ci waram parce que jàpp na ni moom fi mu ne nii fii ak 6 mois mooy nekk président pour loolu lépp mu récupérer ko cest à président bi la jëndee loolu lépp te fekk dafay nax boppam. parce que tey intérêt personnel weesuwul réew moo ni danga nga koo bëgg jël lan fa def nga ni da nga koy yàq mais loolu xel nangu ko tey yow bu ñu doon xëccoo maag yow dara bu demee ci ki ñuy li muy njëkk def mooy ñaari xale bu ñuy xëccoo da nga naan ma yàq xale bi ñu yàqal moomu ko teer bii dégg ngeen fi ay ojo ay nit taxaw ni nan nan ko yàq loolu ndax xel nangu na ko léegi nag ñun ñi nga xam ñun ñooy les grands perdants tey ñun ku ci dee ñun ñooy jaalante teer bi ñun ñoo ciy dugg Macky Sall dugg ci osan yii ñun ñoo doomi aadama yi ñoo ciy dugg waaye léegi loolu ñun ay la yéwén ñu koy yàqal suñu bopp pour lan benn intérêt personnel benn nit te xam Ousmane Sonko kañ la nit ñi waroon wàccoog moom yow naka ngay woowe ay doomi jàmbur kaaleen xeex nga jàpp sa loxo doom ba ci dem bi ni ko mayil sama doom day jàngi mais attends ban Sénégal la nekk. bërki démb toog fi ni Osa dafa war a ñëw Casamance te ñoom ñoo fi waxoon lan c'est-à-dire gis nga boo dul wax dëgg da dem ba si sa biir wax jeunes yi nan conscient xam ni yàlla moo nu tànnal kii gën ci président yi Abdoulaye Wade 2000 la toog 2002 2003 2004 2005 2006 Abdoulaye Wade réalisé wul dara bi Macky Sall nekkee premier ministre am 2007 ban koy wooyee Laye Takkandeer Sénégal danoo gaaw a fàtt parce que boobu kenn xamagul président Macky Sall Ablaye Wade jël boppam def ci ginnaaw gis nga 2007 boobu la Ablaye Wade commencé def ay réalisation parce que président Macky Sall moo ko tàmbali ca la àndee woon ak moom ca Serigne Saliou ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ko ndax bi ma ko amee laa commencé def samay réalisation samay réalisation mais bu nu fàtte loolu léegi nag chance bi nu am mooy Ablaye Wade bi muy dem lan la wax duma fay salaire ndax amul lu ñu fi fayee Ablaye bi muy dem man téer la courant yi naka la doon def di couper ku ci xamet am na événement boo xam da ngay fanaane xool ba ba set di xuloog ay kilaa doo am dara. waa léegi loolu lépp ki toog mën ko def indi ko ba fii lu Ablaye Wade defoon mu yokk yóbbu économie réew mi fi kawee tout le monde ñu respecté ko keroog bi gars yi jaaxle Ukraine kan moo dem toog ak moom mi sa loolu nga am ko nga gis koo xamante ni sa waay Gambie rek amu fi 40 boo xam ni mën nañ ko naw muy ñëw di la diaboliser naa la nangam nangam nga bëgg ko mais ñun kon ban Sénégal la nekk moment bii dafa waroon fekk ñuy sargal ak di tatagal président Macky Sall mu naan damay dem ñu naan ko mukk yaa fi gën. tey jii corona gis nga gis nga tey jii bu fekkoon beneen dëkk la ak beneen président bu amul ma yërmande barke yonent bi kilo ceeb junni lañ koy jëndee parce que man ak yow keneen a ci yem ceeb yi ni lekk dañ koy jéggaani kenn du lekk ceeb mbay. waa léegi ceeb bu ñuy jéggaani li dal feebar bi di àdduna bépp mu dal yow li ngay jéggaani nga fexe ba fi mu ne nii lekk fii ceeb a lekk France demal nga xool waa bitim réew mais ki la defal loolu ngay ànd ak koo xamante ni sawaay ñi mu àndal amul ku ci crédible bi lu dul seen mbiri bopp beneen bi ñoom ñoo fi taxawoon ñu ne du nu boole ñaari fonction du nu boole maire ak député waa kan nga ci gis mu démissionné kan ñoom ñëpp ku ci ne fi mu ni mugg beneen bi ñoom dañ ni woon dañuy laaj kër gi ñu jox leen néeg mais xanaa di nga wane néeg bi li nga fi defar ñu mën ko laa jox kër gi tey képp koo xamante ni jëloon na maire ci ñoom seeni gox demal nga wëri ko ñu ngi bëgg a dee géejawaay ñu nga yuuxu naan bu nu yëgoon Pikine si fii lañ jël maire bi lamp ya fa Pape Gorgui Ndong yi mu jaay ko naan feeraay laa ko tegoon xanaa yow même bu dee feeraay du maire bee ko war a jaay parce que musul nekk sa conseil municipal nga dem feneen dem feneen mais sa waay léegi nag ñam nan loolu ñu xam ni neexul ñu bëgg a jël réew mi di ko jox koo xamante ni tey bu fekkonte ni yow tey Sonko exemple rek ci bu fekkoon dafa toog balaa xayma fi président Macky Sall yem ba fi muy yem moom trois ans jot parce que yow benn mosoo yor benn institution amoo ci benn expérience mais sa waay kon nag ay la yëwén nanu ànd suñu xel faral réew mi bañ a faral nit xool kiy def ci réew mi ñu àdd ak moom ak ki yàq réew mi ñu tegee ko nele mosoo gis ci histoire politique kaa leen xeex kaa leen nangam rek amul benn programme mais xanaa Cheikh Tidiane ga kii euh, euh, maa ngi seetaan benn ministre bu nekkoon ci président te mais dama koy saluer parce que toog na jàkkaarlook nit ñi wane ay ay ay ay programme c'est-à-dire réew programme lañ koy jëlee. gis nga réew bu fekkonte ni dañ ni xeex a koy gañe sax nga ni kat nan xeex mais dañ ni la voté la te yow miy voté waroo sax sol identification dangay dem ba ci bañ gàcce ga kon koy ay la yéen foofu ca xeex nekk. beneen bi ñoom ñoo fi taxaw bi bi ab Ablaye Wade jàllee ñu ne Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko lan la wax. way xam nga mbiru politique mais Ablaye Wade même bi ñu koy waroon nekk candidat waroon na nekk trois amoon na droit léegi ñaata nit a ci dee ñu toog wax loolu léegi mi mi ñun tooguñu fi ñu ne dañoo juumoon ci Ablaye Wade léegi dañuy juum ba kañ ku fi ñëw bëgg a yor réew mi mais yor ko ci tekk tey mais mënoo fi nax nit ñi parce que nit ñi tamit dofuñu il faut que nag jeunes yi ñu conscient am na lu ñuy wàcc communication loo xam ne kooku bu ne dinañ fa dugg wax ak jeunes yi parce que tamit mbir mi tamit. ñi nga xamante ni ñoo ànd président ñu fal leen ñu nekk ci gox yi il faut ñu génn parce que tey nit ki bu fekkente ne dañ koo wax lu dul dëgg ba mën koo récupérer yow mi yor dëgg loo wax lu tuuti di nga ko mën a jël ñu woyof parce que nit boo ko jegee du la tala ñaan génn wax ak askan wi jege leen. parce que da ngay dem gox yoo xamante ne amul kenn ku fa représente Ousmane Sonko ku mën a dégg te fu ci nekk xoola tey pikin Pikine am na ñaari ministre am na euh, am na PCA. ñaari PCA am directeur am maire wala kan nga ma mën a déggal Pikine ni ma kii Ousmane Sonko laa àndal ku nit mën a gis. kon ñooñu bu nu xoolee ba nu ñàkk Pikine mais loolu responsabilité bi kan la nañ génn ñu wax ak askan wi ñoom ñëpp bu nu boole woon seen doole rek. àndandoo bokk ndey ak baay jël intérêt personnel bi muy président Macky Sall barke sëriñ Bamba Mbacke Pikine Macky du ko ñàkk te élection yi passe dañ ko ñàkk parce que lan ñoom ci seen biir ñoo def ay vote sanction il faut que ñu gore tamit ñu jàppale président parce que tamit yow bu dee sa noon day taxaw fale di wax yow ñi nekk ci biir ñuy xiiroo di ngaayo yaa ngi may sa noon parce que jamaale ko njëkk a yàqal sa morom nanu conscient ñu ànd ak ki jara àndal ki nga xamante ni bi mu ñëwee waxul ba yàqu dafa def kenn mës a dégg mu wax moo tax ma ne ko borom noppi liggéey inauguré kooku nag bu fekkente ni mi ngi fi lii mu def mu mën ko def war ko yeggale xoola teer bi boo ci duggee tey bu njëkk booy dem Dakar da ngay yóbbu sa oto booleeg coono gasoil bi jot doo am foo ko gaare léegi dangay ñëw ba ci teer bi nga gaare sa oto dugg fay 1000 francs dem Dakar fayaat 1000 francs dëkk jël sa oto dem sa yoon mais ki defal loolu kana fa xoolal BRT bii di waaj a ñëw xoolal tey ñiy tukki fi mu bi ñu ngi koy yeggali mu dem ba euh, aéroport ba. imagineel tey yow loo loo naroon tardé boo jëlee teer bi dem jaar ba ci dugg sa avion mais ki lay defal loolu sa waay nga di ko gis. mais ay la yëwén nag kooku boo ko waxatul jërëjëf waroo caa teg dara bu fekkee ni kuy defar réew mi rek lan bëggoon parce que tey jëmmi nit ki amulu nu intérêt Sénégal ngay gis benn profil buy diaboliser ñu naan noo diw mu sell mi diw mi nanga mais jëmmi Ousmane Sonko ban njariñ la nu amal mais li nu amal njariñ mooy ki nga xamante ne day liggéey parce que tey nit nit mën naa wax loo mënul mais kenn mënta jëf loo mënul boo gisee américains yi raw waa France mooy France da bindiloo CV CV bi mën naa cee bind jaar naa fu ne fu ñu koy justifier américain da ngay ñëw ni ko chauffeur laa mun la camion baa ngay dawalal parce que nit mën na wax lu mu mënul mais kenn mënta jëf loo mënul nga am président boo xam sous raison bi lan la ñuy wax jox leen président Macky Sall ah lu ne mu liggéey ko nekk président CEDEAO def foo liggéey bu mucc ay bi ñëpp ragalee dem ci guerre Ukraine bi moo fa dem. lijjanti affaire yi ba nu jox ko ba nu reprendre at bele bi américains yi respecté ko ñëpp respecté ko nga am ko mu am crédibilité. mais sa waay kooku nga ni da nga koy jëndeek lan mais nanu conscient. d'accord nanu conscient. d'accord am na solo damay ñëwaat ci sama frère bi. Euh, naka nga gisee wala tey mën nga ma ñëwaatal ci programme mu président Macky Sall. waaw comme sama waa ji wax rek. président euh, président Macky Sall moom mi ngi liggéey. tey koo gis ma nekk si mbedd mi di wax rek. nan président Macky Sall liggéeyu rek. waxoo dëgg waxoo la am. président Macky ku ne liggéeyut waxoo dëkk ñun mënuñoo am ku gën président Macky Sall de. te dinaa la wax lenn gis nga mag ñu baax ñëpp président Macky Sall lañ àndal kilifa yëpp moom lañ àndal ndax tey ñoom guddi bu jotee bañ toog seen sijaade yi di ñaan pour réew mi am jàmm boobu xale yi ndaw yi naan dañuy taal pneu dañuy taal dëkk bi ñu ngi si mbedd mi wala ñu nekk seen bopp boobu ñu ngi lal sijaada di si ñaan si réew mi pour yàlla def jàmm ak salaam si réew mi te ñooñu fi ñu mën a xool gis fa ñun suñ bëtt eggu fa. te ñoom tey suñ jàmmee réew rek lañ ñu bëggal ak liy xew sa kanam moo tax ñu ànd ak président Macky Sall ndax xam nañ ne liggéeykat la mi ngi liggéey réew mi nag dinaa la wax lenn képp ku ne réew mi dañ koy taal waxoo dëgg réew mi bàyyi kenn mënu koo taal. du bàyyi Ousmane Sonko du bàyyi keneen ak keneen ku mën a taal réew mi Ousmane Sonko tuuti na si taal réew mi ñaari baat ñett mu ne génne leen ñu rayante génne leen ñu xeex gasa gassa te liy tooy si moom lay jógee jeunes yi laa bëgg ñu yeewu ñëw ñu toog ñu waxtaan ndax président Macky Sall problème mu jeune la am man gox yi ma demoon yëpp waxtaan ak ñoom xam naa li jeunes yi bëgg te la ma fa ma jaar fépp fu ma jaar gox bu ma jaar am lu ma wax waxanteeg ñoom ñun def nañ ko. la ma fa diggee lépp jot nañ ci gox yëpp nag laa la wax waaye tey xam nga jeunes yi munoo tey chaque jour nga xëy lii na jeunes yi dañu bëgg ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu teg leen si loo xam ne nii dinañ si jàpp mu wéy ñu mën see dund mën see dundal seen waa kër ba nga xam ne duñ soxlaal kenn dara mhm. duñ am jotu sax danañu taal pënu wala ñu ngi si mbedd mi di rayante wala dara tey boo nekkee si mbedd mi wàcc fi di rayante ñu jàppal dugal si kaso bi Ousmane Sonko du moo la fay fekk di la fa génne am na ñu nekk si kaso bi nii ba léegi génn ñu ngi bàyyi seen njaboot yi si biti kan mooy yor seen kër Ousmane Sonko du fa dem du leen seeti xamu leen sax boo waxee kenn lay wax kii toog sama oto taxaw si ginnaaw yor drapeau bi di yëkkati kii def lii du leen sax tudd nañ ubbi seen xel yi ñu ñëw ñu liggéey man gox yi ma jaaroon yëpp waxtaan ak jeunes yi dinaa fa jaaraat. waxtaan ak ñoom ndax am na leneen lu président Macky sàll di préparé ñoom ñu mën si gis seen bopp. d'accord te fépp dinaa fa demaat ak fi ma demagutoon dinaa demaat si yëpp waxtaan si ak ñoom dinaa si ànd ak sama waa ji ak ñeneen ñi ma si war a àndal pour liggéey ñu waxtaan si wa toog toog ak président Macky Sall waxtaan ak moom ne leen kat ndaw ñi kat lii ak lii ak lii mu jàppale leen ñu nekk si loolu. ba tey kenn du leen mën a ba ba nga xam ne kenn du leen mën a dugal si dara. d'accord. ndax réew mi moom président Macky Sall du ko liggéey ba mu toll fii di ko yëkkati di ko jox ay xale yu ndaw du ko def te ñun duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg réew mi nag ko wax ñu saaga la man nag ba ñu ma ko ma saaga ba ñu ma ko ma wax ju ñaaw fi nekk xam naa lépp tey bu may wax jeunes laay waxal ndax tey tey koo wax rek non vingt ans la ñu vingt cinq ans man dama war dimbali sama yaay dama war dimbali sama papa dama war def lii loolu baax na. tekk ak tey dëkk bi am nga droit am lu la metti nga dem toog wax ko si njëkk ak teraanga ak yaru doo taal doo yàq doo déranger sa carte nag yaa ko moom bu élection jotee nga woteel ku la neex waaye na réew mi président Macky Sall du ko defar ba mu toll fii ay xale yu ndaw bëgg koo yàq loolu tuuti nañ si. te jeex na bis na naka tey. kenn du taal dëkk bi. mënuñu sax mënuñu ko sax taal. ndax li fi xewoon li fi amoon li fi amoon dootu fi amaat. boobu confinement la la tombel booy tëj bi yàgg ñu bëgg a génn pour nekk si seen bopp moo tax ñu fippu wala du dara lu danse wala dara yow dañ ne couvre-feu lañ nekk kenn amul droit génn am ñoo xam ne nii dañ leen a jox laissez-passer pour dañuy liggéey wala ñu nekk si hôpital yi ndax fokk ñu dem liggéey yow nga dem génn sa kër dem si foo xam ne dañ fay maase woo ba li la fay fekk fekk la fa. mais Adji Sarr citoyen la Sonko citoyen la su ko jiiñee na ko danga ma def lii ñoom ñaar la boo fa dem di maase wu ba mu fekk ba lool ba li ko fa fekk fekk fa na dem mu taxaw mu régler loolu. na dem toog régler loolu waan bu mu rey askan bi bu mu rey xale yi na dem mu toog mu régler ko moog aji Sarr la beneen bi moog Mame Mbaye Niang la yaa na yor naa waaw lii dama koy indi teg ko si table ji nangam saata te buñ la wooyee amoo lenn looy teg si table bi lan ngay teg si table bi amoon lenn loo indi pour teg ko si table bi buñ waxee nga ne waaw ñii ne nii laa doo wax dara soo ne da am preuve preuve boobu da nga koy indi nga teg ko si table ji loolu mooy yëfu nit mooy yëfu gor na ko régler ak problème am moom Mame Mbaye Niang régler problème am ak Adji Sarr ndax yooyu yëpp moo ko fi def nit nag boo defee dara wàcc yoon bi da ngay dem si yoon ñu ko ak waa yoon. dafa dem war a wuy ji taxaw am ay projet bu mu woo askan bi génn leen di taal ay pënu nan la nan leen ñu xeex gassa gassa te liy métti si moom lay jugee na bàyyi askan bi ñun nag ay ndaw lañ comme askan bi dinañ wàcc si gox yi waxtaan ak ñoom xool nuñ leen gérer ba ku si nekk liñ li la président Macky Sall defal di nga si mën a dimbali sa waa kër dimbali sa bopp nekk si ba doo tal xeex ak xuloo d'accord dafa am ay ndaw yu fi nekk yoo xam ne nii ay jeunes lañ di dimbali askan bi dama teg ci sama bët gis ko te ñooñu ñu ñu war a jàppale la li si ma neef sëñ Fallou Mbacké transitaire day dimbali ay jeunes di dimbali ñëpp di jël xaalisam di si def ma teg ci sama bët li mën ne euh, li si ki si mel ne Nazir Zambo Nazir Sambo Nazir Sambo nit ku baax la. xale la jeune la comme ñun wan day jàppale ay nit. te yàlla tax du si boole wax du si boole dara. lu si mel ne Ablaye Ndiaye Ngalgu day jàppale jeunes yi bu baax a baax di taxaw si président Macky Sall pour ndamam instant yi may wax ak yow mi ngi Suisse bu fi jógee day dem Espagne dem Italie lépp si président Macky Sall ndax sama sëriñ ba moo jàppoon loxoom teg ko si loxo Macky ne ko dénk naa la ko muy sëñ Abdou Aziz Sy Al muy sama sëriñ di sama lépp di sama waay moo tax bugguma kenn ku wax dara lu jëm si Tiwaawoon lu si waaye wax rek daf may metti ndax man awma kenn ku du tiwaawoon tiwaawoon doy nañu añ doy nañu reer doy nañu ndékki te dootuma mayeti kenn kenn kenn kenn kuy wax jëm si tiwaawoon mayetuma ko nit kuy taxaw si kaw suuf ku si waxati lu fa jëm dara lu jëmati tiwaawoon man sama bakkan bi dinaa la ko jaay man taxaw naa pare naa pour jaay la sama bakkan man ndax ginnaaw yàlla ak bi lu ma am rek tiwaawoon la bu ma jaaxlee fa laay daw bu sama bët xonkee fa laay daw du ma nangu nag kenn di ma ko laal wala di fa wax na ko su noonu di wax imaam nag yàlla na ko yàlla defal jàmm ak salaam ba mu wootee ñëpp ñëw na wuyu si de te bu woote waatoon sax lay gën a neex ndax jumaa ji am na ñu ko man a tabax de waaye dañoo bëgg ku nekk rek dugal si sa ñax ñun tey man jeune laa mënoon naa fee nekk di agressé lu ma dugg si di def ay def yëpp waaye dama bëgg lu mi ngi liggéey réew bi te kuy liggéey réew bi moom la ñuy àndal ëllëg ñun ñoo fiy nekk Sonko mënut a jugee impôt domaine yor fa benn poste jugee fa rek ñëw am na droit laaj réew mi waaye lépp nga teg ko si fulla ak fayda te ki yor réew mi mi ngi koy liggéey te kenn du ko jël si ay loxom di ko jox ay xale yu ndaw kenn du ko seetaan loolu. d'accord am na solo waaw am na solo. am na solo Alioune Mbaye ban programme la seen mouvement boobu nekk xam naa foofu la ñuy jaar tàggoowaale rek comme waxtu waa ñuy xot. waaw jërëjëf di la gërëm bu baax guy gi di gërëm Pape Sall li mu wax leer na parce que tey bu fekkee da nga bëgg a dimbali sa yaay nga nekk jeune war nga mën a fexe ba ndimbal la bu ca loru yóbbu loru ko mooy boo génnee ñu tëj la sa yaay ba nga doon dimbali mu boole mu bëgg a boolewaat démbam ak daqaaram di la fekk 100 loolu amul sens. nan ko déglu li bëgg dox pour jeunes yi ku ci nekk fi nga nekk dina la fa fekk. jeune bu ci am ambition bëgg lu baax dinga jariñoo lu baax li nu indi. mouvement bi nag instant bi fi nu toll def nañ conférence de presse bi kenn ku ci nekk yaa ngi fi nga nekk toog waroon nanoo def maanaam jaar ci ñi nga xamante ni ñoo nekk Koungheul Touba Njaareem pour dajale leen. après defaat beneen meeting de démonstration de force boo xamante ni dina permettre ñu jàllale communication président fu ñu ci dem dina def écran géant wane li président def waxtaan ak ña fa nekk ndax président xuloowul xeexluwul ndax dafa am bilan te bilan doy na wax sëkk. loolu daal la ñuy la ñuy la ñuy xaar ci ñëpp di gërëm bépp autorité boo xamante ni yaa ngi jàppale président Macky Sall. di gërëm Pape mi ni ma ko waxee woon les fatigables de président la. parce que foo ko fekk ci loolu lay dox te loolu lan soxla parce que nee leen moment bi ku ci soutenir président ban moment nga koy soutenir. moment bi bu doon nit rek en tant que nit ak frère mu def lépp rek xanaa dina xaar sax benn jërëjëf boo xamante ni dinañ ko wax ko ngir volonté bi mu def ngir Sénégal parce que def ko ngir moom. def ko ngir doomam Sénégal seqoon ak ñoom waxtaan di leen jaajëfal di leen jox yeneen di daje ci suñu yeneen émission bi ci people 221 jërë ngeen jëf.